dali na jàmm ñu ànd xëyër yéen i kaay ñu xëyandoo yéen i kaay goo ubbi ma ngi wax nga xam ne moom la ñu dëgmal lu jëm ci wàllum ne waa conseil constitutionnel ñoo ko doon saytu saytu bi ko doon saytu saytu ba na yéen gi de l'info vox populi ak Sud Quotidien ñu xëy diñu xibaar naan ñu lu jëm ci gi de la témoin ko dëggal yéen i kaay gi di vox ak nga xam ne jàlluñu i kaay gi de l'info xëy ñu lu jëm ci wàllum saytu parrainage geeg deuxième tour bi nga xam ne conseil constitutionnel ni ki démb doon na ko amal am na ci candidat yoo xam ne bëccëgub démb bi neex na si ñoom waaye am na ci ñoo xam ne bëccëgub démb bi neexul si ñoom yéen kaay gi nee na Aminata Touré bëccëgub démb bi neexul ci mooma ndax jàllul ci parrainage bi Abdourahmane Diouf bëccëgub démb bi neexul ci mooma ndax jàllul ci parrainage bi Bougane Gueye Dany bëccëgub démb bi neexul ci mooma ndax jàllul ci parrainage bi Abdoul Mbaye bëccëgub démb bi neexul ci mooma ndax jàllul ci parrainage bi Maître Ila Diouf bëccëgub démb bi neexul ci mooma ndax jàllul ci parrainage bi Amadou Li bu ak li bëccëgub démb bi neexul ci mooma ndax jàllul ci parrainage bi ñii dañuy xaar yeneen élection bugaan gi daani ngir mu jàll parrainage loole ay jafe-jafe la yéen kaay gi fu ñu xëy fekk fa Aminata Touré muy ñaawlu njuuj njaaj gi nga xam ne moom jàpp na ne régime bi jamono ji dañu koy def ba éliminer ko moom Aminata Touré sax dafa jàpp ne ay parrainage am dañu koo sàcc maanaam dañu koo luubal ca région bu Saint-Louis Aminata Touré tamit daan nay wax ne andi na citoyen yoo xam ne daan na koy valider waaye nag moom Aminata Touré ci biir journal bi daan nay wax ne nguur gi bu jàppe ne éliminer gii ñu a ci tax rip ko dinaa ko def ngir nag ñii nga xam ne ñoo fi nekk jóge ci réew mi changement am ci réew mi li am ci journal bi di Vox Populi mooy kàddu yi Bougane Gueye Dany moom tim démb lañu ko éliminer bëccëgub démb bi neexul ci moom Bougane Gueye Dany mer na daan nay wax ne nguur gi moom tim lu mu mën ba ñu jóge fi dégager dana ko def dana wàcc ci ci terrain bi moom Bougane Gueye Dany yéene kaay gi Dakar Presse xëy duñu xibaar naan ñu Rose Wardini ni ki démb jàll na waaye nag jàll gi Rose Wardini jàll gars jamono ji ñoo ngi koy ŋawta ŋawte débat yaa ngi ci mel ni tulleeg male ci Rose Wardini mi nga xam ne démb jàll na ci parrainage bi ndax lu toll ci trente un mille parrain la Rose Wardini waroon a complété moom la complété ni démb moo tax jàllam bi jamono ji gars ñoo ngi ciy wax yéene kaay Abdoulaye Dione jàll na Mali Gakou jàll na Idrissa Seck jàll na Mame Boye Diao jàll na Diomaye Faye jàll na Mamadou Lamine Diallo jàll na Pape Djibril Fall jàll na yéene kaay gi di Direct News na ko yokk ci Serigne Boupa moom tim jàll na niki démboo Aline Mamadou Diabou Pire jàll na niki démboo Rose Wardini moom tim jàll na niki démboo Cheikhno Alassane Sall jàll na niki démboo yéene kaay gi di Walf Fadjri moom ni mu ko gisee nee na tour bi jàll gi yomboon premier tour ba yéene kaay gi de la quotidien yor yor xëy am na lu toll ci ñaar fukk ak benn ci candidat yoo xam ne jàll nañoo journal bi nee na nag jamono ji ñaar fukki fan ci weeru janvier la xaar ndax mën ngaa jàll ci parrainage bi ba pare doo dem ci élection yi nga xam ne moom la ñu dëgmal ndax am na yeneen mbir yoo xam ne bu ñu la ko toppee doo mën a dem ci élection yi maanaam ñi nga xam ne ay double nationalité la yore wala ñi nga xam ne amee yoreel nañu mi xaalis wala ñoo xam ne ay escroc lañu journal bi mooy wax nee ñi nga xam ne nag ñooy waa Pastef jamono ji seen yaakaar ji ci Bassirou Diomaye Faye la ñu ko wékk ak ki nga xam ne mooy Habib Sy journal lu Mamadou Oumar Ndiaye bii di la témoin nee nga xam ne ñooy dem ci élection présidentielle yi nga xam ne dañu leen tuumaal te li leen tuumaal sax ñi leen tuumaal mënuñu see andi ay firnde loolee injustice bu mag lay doon kenn ku nekk nag sañ-sañ xalaat ku la neex waaye li am ba des jamono ji contestation yi ma ngi mel ni tulleeg màlle te bu ñu si jëlul nag ay matukaay maanaam élection yi njàmbat yi dina ci bëri waaye wa bañ koo jëfee maanaam di ko nappaaje administration a waaye nag journal bi de la témoin nee li ko jaaxal ci mbir mi mooy magistrat yi nga xam ne ñoom dañoo jël ab dogal ñu daal di koy sànni sa àll ba ba pare ñoom kenn déggu ñu wax see kaay gi di dëkk news xëy duñu xibaar naan ñu fan fan yi yéen a ngi doon dégg ñuy wax ne Mohamed Ben Diop ab candidat la ci élection yi nga xam ne moom la ñu dëgmal waaye bi waa conseil constitutionnel càmbare ab dossier ma dañoo gis na nekkul ci fiche électorale bi ndeket du Mohamed Ben Diop rek moo nekk candidat boo xam ne nekkul ci fiche électorale bi moom tim gisuñu ko ci fiche électorale bi moom moo ko xamle ci page Facebook ama daan wax ne nag moom amul yenn erreur yoo xam ne ñoom def nañu ko ci seen wàllum parrainage i kaay gi dale ko di ak las xëy duñu xibaar naan ñu xam ne mujj ñee jàll ci lu jëm ci wàllum parrainage bi ku ci mel ni Souleymane Ndéné Ndiaye ancien premier ministre jàllul ci parrainage bi Aminata Touré ancien premier ministre jàllul ci parrainage bi Abdoul Mbaye ancien premier ancien premier ministre jàllul ci parrainage bi waaye nag am na ancien premier ministre yoo xam ne ñoom jàll ci parrainage bi journal bi de la sa nee na Mohamed Boun Abdallah Dionne ancien premier ministre jàll na ci parrainage bi Idrissa ancien premier ministre jàll ci parrainage bi yéen i kaay gi di point ñu nag nee nañu bëri na ay ndëgg sërëx yoo xam ne doon nañ leen ko lalal ngir nag bëgg a éliminer Mohamed Boun Abdallah bañ mu bokk ci yi nga xam ne moom la ñu dëg ma la waa Dionne 2024 ñoom nag nee nañu lu jëm ci wàllum bi amul kenn ku leen yàkkal ay parrain nee nañu tamit ñoom jënduñu ay parrain te nee nañu am na fii candidat yoo xam ne waa Pastef ak waa Benno ñëw leen yàkkal ay parrain yéen kay gi di Sud xëy duñu ñoom jàll nañu ci ku ci mel ni Rose Wardini ak Anta Babacar Ngom parrainage bi di limal ñaar fukk ak benn candidat nga xam ne ñoo jàll ci lu jëm ci wàllum parrainage bi ci élection présidentielle 2024 nga xam ne moom la ñu dëgmal journal bi nee na fukki candidat yeeg benn ñii la Boubacar Camara jàll na Déthié Fall jàll na Cheikh Tidiane Dièye na professeur Daouda Ndiaye jàll na Karim Khalifa Sall jàll na Habib Sy jàll na Anta Babacar Ngom jàll na Amadou Ba jàll na Rose Wardini jàll na Idrissa Seck jàll na Aline Mamadou Dia jàll na Serigne Boub jàll na Pape Djibril Fall jàll na Mamadou Lamine Diallo jàll na Mohamed Boun Abdallah Dionne jàll na Malick Gakou jàll na Aly Ngouille Ndiaye jàll na Mame Boye Diao jàll na Bassirou Diomaye Faye jàll na Thierno Alassane Sall jàll na yéen i kaay gi de la Soleil nee na lu toll ci quatre-vingt-treize candidat ak benn na yéen kaay gi de la ñu koy fekk fa Habib Sy nee na tey la gën a jàpp ne Ousmane Sonko dina bokk ci élection yi nga xam ne moom la ñu dëgmal la ñu gën démb ba muy wax andi na jurisprudence 1998 ak Insa Sankharé mi nga xam ne amutoon récépissé trésor général ndax nag Insa Sankharé bi mu andilee conseil constitutionnel ay firnde na li tax amul récépissé trésor général maanaam du ci moom conseil constitutionnel daf koo jox dëgg moom Habib Sy ci biir journal bi daan nay wax ne Ousmane Sonko bu ñu ko éliminé ci élection yi nga xam ne moom la ñu dëgmal loolee nag décision politique la ndax am na nañu ay firnde ci lan moo tax waa CDC joxuñu Ousmane Sonko ab attestation buy wane ne fay na caution ñoom nee nañu am nañu ci firnde yéenekaay gi di bés bi xëy duñu xibaar naan ñu keroog bi Macky Sall tànnee Amadou Ba ne mooy candidat Benno Bokk Yaakaar ci biir Benno am na ñenn ñoo xam ne dañoo fipp woon génn ku ci mel ne Aly Ngouille Ndiaye Mahammed Boun Abdallah Dionne Mame Boye Diao ñett ñi jàll nañu ci lu jëm ci wàllum parrainage bi journal bi nee na ñii ñoo fas yéene jàmmarloo ak Amadou Ba yéene gi de la moom li mu gis sa nee na ñi nga xam ne ñooy waa système bi dañu leen a bàyyi ñi nga xam ne ay ñu daal leen di bloqué ci xën mu njëkk journal bi ñu fekk fa photo Aly Ngouille Ndiaye Mahammed Boun Abdallah gis fa photo Ousmane ne ñooy nitu système bi yéene gi tamit nee na Bassirou Diomaye Faye ñi nga xam ne nañu waa conseil constitutionnel ñoo ngi koy xaare ñaar fukki fan ci weeru janvier ba xam ay mbiram nan la ko gaay di lijjantee gi di évidence xëy duñu xibaar naan ñu ñi dañu leen éliminé yéen gi di réew mi ko ñu xëy fekk fa professeur Amsatou Sow Sidibé muy laajte caution nañu ko jox caution yéen a gi di point actu xëy duñu xibaar naan ñu en tout cas de sall am na noppi goo xam ne gis nañu ko ci yenn candidat ci wetu Ousmane Sonko Habib Sy rek la ñu gis mu koy xeexal ak di ko tubayul ak di ko ñaxtu la waaye Déthié Fall Boubacar Camara ak Cheikh Tidiane Dièye ñett ñi dañoo noppi kenn déggatu leen yéene kaay gi di bés bi xëy duñu xibaar naan ñu élection présidentielle ñaata milliards lañ si nar a def ndax nag élection defoon nañ ci lu toll ci 14 te booba juróomi candidat rek la ñu woon yéene kaay di la peuple quotidien ñu xëy fekk fa Serigne Modou Kara nee a dàq ndax nee n